donc euh, candidat à la candidature présidentielle de 2024, président de la coalition Goleria, euh, responsable politique, Goloria, gestion des opportunités pour la libération des énergies, la réconciliation, l'innovation et l'autonomie. Membre de la Non, non, non. La c'est une vieille histoire. La paix n'existe même plus. Le président a fui. Ça la Voilà, donc, euh, responsable politique national. Voilà, je le fais à Thiès parce que Thiès, c'est mon fief. Mais je suis un responsable politique national. Alors, donc, tey dama ñëwoon waxtaan ak askan bi ci mettitlu li nga naxee mbaay bi nga xam ne nguur gu bees gi moom la jugteel naxee mbaay bi nag dara waralu ko tey jii lu dul mooy nguur gu tële xamul fu mu jëm ba tax na diggé yi mu defoon yépp tey ji bu ngeen seetloo waxuma la mu ngi ciy dellu ginnaaw de waaye daf koo wan ginnaaw delluwu ci ginnaaw daf koo wan ginnaaw li ma ci wax léegi nii foofu laa mujjee woon léegi ci français bi ne leen caisse noire bi nga xam ne Ousmane Sonko dafa taxawoon ne lool dafa haram que impôts yi ñiy jaay caaf ñiy jaay gerte ñiy jaay mburu la ñuy jël dajale ko jox ko président de la république ne lu la neex def ci que loolu moom dafa ne woon dafa haram tey jii ñoom loolu la ñuy jël di ko jëfandikoo di ko politiquer pour entretenir seen clientèle politique loolu nag Il faut ak ay chaque jour premier ministre bi ñu nguur poste stratégique yépp dañuy jël def ko appel à candidature gi nga ne la ko mëna tuddé sen bobu militant dembalatu la taxaw pour parti politique Sénégal amul bi nga

mënagul décoller xamuñu ban bouton la ñuy laal pour avion bi naaw gis nañ seen télé ba tey jii président Diomaye fay day taxawaalu rek mu ngi tambaambalu tey fii suba fële. gis ngeen ko Thiès le premier mai jour bi nga xam ne tey jii moom la war a recevoir les cahiers de doléance mu ñëw Thiès ne yaayee li ko indi mooy dafay ñëw xool si ay terrain fii gis ngeen ne fii tey jii terrain amu fi lim doon xool foofu tey jii. directeur de domaine bu cees bi mënoon na ko defal compte rendu jox ko ministre am ministre bi jox ko premier ministre premier ministre étudier ko jox ko ci ay conseil mais loolu moo lay wan ne tey ji ay apprenti yi nga xam ne amuñu benn préparation pour occuper fauteuil bi la Sénégalais fal te loolu c'est dommage pour le Sénégal moom ci boppam wax na ko nee na moom préparé wul woon pour nekk président moom da doon xeex fukki at pour teg Ousmane Sonko waaye nee naa ne moom sax il est le moindre mal il est le moindre mal parce que tey bu ñu tegaloo Ousmane Sonko dëkk bi tàkk tey jii benn vulgarisateur bi ma demoon oto bi bu soxna si nekkoon fii léegi dana ci témoin xamul ne politicien laa de mais ci loolu la doon wax ci tële gi pour wax la ne ñi leen voté tey ji bu ñu demoon suba élection 54 pour cent yi ñu amoon gëw ma ne nañ passé moitié bi lu ko ëpp gëw ma loolu ndax les sénégalais sont déçus. dañu am mbetteel ba tax na ci kaw loolu man candidat laa woon à la présidentielle à la candidature waaye xëy na préparé wu ma ko woon comme li ma ko war a préparé maa ngi ci ay waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne demoon nañu ba présidentielle nag ñoom demoon nañu ba présidentielle ñii woo nañ ma ñii daje nañu ak man ñu ngi préparé wu autour d'une grande coalition parce que le Sénégal nag mérité wul lii

dañuy dépenser de l'argent nañu convoquer une bonne fois le corps électoral ñu rectifier erreur bi nga xam ne dañ ko def le 24 mars bi passé c'était une erreur grave le gouvernement xamul fu ñuy teg seen tànk tey jii yéen presse bi wax naa ko ci tubaab presse bi tey jii dañ leen a bundu xataal bundu xataal ba pare teg leen bët xoolal suñu RTS bi ñu ko transformé tey ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci organe de presse di saaga tey ji ñu jël leen yóbbu leen RTS suñu télévision nationale. ñoom li ñu doon wax bi ñu nekkee opposition tey jii li ñuy def c'est pire parce que il sont en train tey jii état bi dañuy jël di ko métamorphoser. Ah, man contre ma rappeur mais un président de conseil d'administration nga jël ko di ko def un rappeur. quelqu'un bi nga xam ne ay vidéo lañu wone ñukay ñu waxuma dañ ko jinde, mais dañu wone ay vidéo ñi diko ko nga jël ko def ko président conseil d'administration encore qu'il n'en a pas les compétences donc lolu dafa metti réew mi mais comme ni ma wax léegi seen waajooju ngañ dembatu rek genn diko wax avec arrogance ne ñom la sénégalais yi fal donc ñom ñoy seet ku len neex ñu teg len fi

Gol bi dem de euh, marqué ji des buts ki war a marqué bi ñëw ci place libéraux bi loolu laa gis ci gouvernement bi nii xamuloo kan mooy wax lan le ministre de la communication dafa war a xam ne li ñu ko mooy économie numérique te ba léegi les changements structurels yi ñuy xaar au niveau des plateformes numériques déggaguñu ko ci collecter impôt yomb na collecter impôt amul laajul xam-xam waay dañu waxante dëgg ñëwal fay impôt loolu jar na ministre di def ay point de presse di ngagne presse bi te léegi man gis na ne ñom seen nguur gi ci loolu lañu excellé da ngay gis un directeur général bu ñu nommé au lieu mais looloo tax ñu tek leen Sénégalais tek leen fi ñuy gëné naaw diw fayeeku na fi benn million diw fay mais attends mais looloo tax ñu tek la fi pourquoi ils font fuiter ces informations au niveau de la presse c'est parce que tout simplement ils ne sont pas à la hauteur li may wax nak man product la liggéey cadre laa fa tey ji dafa mel ne dossier bi dafay bëgg jël beneen tournure ndax ña nga xam ne ñoo contractu contractualisé woon ak président Macky Sall gerte doon dem depuis deux ans te percevoir nañu plus que li nga xam ne moom lañ contractualisé woon ak l'État du Sénégal te livré wuñu la moitié des travaux ba pare dem seen yoon. C'est li taxoo ñu dem ñu né problème impôt la woon nguur gi mom impôt du ko balé pourquoi ñom sous ce régime là ñu ci il faut vous poser des questions mais fi kenn doful waay pourquoi ñoñu percevoir plus que li leen Sénégal non ba paré livré wuñu la moitié des travaux man suis na ak président Macky Sall mu laaj ma mais pourquoi l'entreprise est partie mais pourquoi avec ce régime là ils sont revenus Moi je ma ne si bu fekkee ne dafa affaire bi dafa nar continuer nii faire une sortie de presse parce qu'il y yor tous les éléments pour divulguer devant la presse pourquoi ces gens-là sont revenus pourquoi ñu nangul ce nouveau régime li nga xam ne nanguñu président Macky Sall bi nga xam ne président na ak Euh, man xam nga toog naa télévision xam nga tey ji sañ naa cee wax parce que Cour des comptes génne na ko ne fay nañu 38 milliards à l'entreprise man taxaw naa télé parce que sañ naa ci wax léegi parce que document bi génn na ci Cour des comptes mais ñun à moment donné mënatuñu yedd suñu doom parce que fu ñu toll ñu ne Prodac waaye ay pro ay sàcc fa nekk ñun les cadres mënuñu ci wax Ousmane Sonko génn ne dañoo détourné 29 milliards ñu ne ko génneel 29 milliards yi fan lañ ko détourné fu mu mujjee dañ ko emprisonné non ba léegi nii mais tey jii man foogoon naa ne dossier boobu lay njëkk a lijjanti comme ne woon na yoon dossier bi cinq mois après mais Grand Théâtre gis ngeen ko fa au mois de mai génnaat na fa mois de juin mu dem Grand Théâtre ne dossier table Je le mets au défi. Il n'a pas de dossier. Je le mets au défi. Il n'a pas de dossier. C'était des paroles en l'air. et qui ma ci été dafawo dafa ay jeunes ne pas défendre ma ñooñu ay bal ñu dé. lan protocole de capitulation de Cap Maniel est-ce que nyom ci deretu xale nous avons am caution pour être candidat à la présidentielle xale yooyu dee aujourd'hui parce que dañoo ne Ousmane Sonko dossier product na loi d'amnistie ne ci 165 députés Macky Sall 82 députés la ci mais 94 députés ñoo voté loi d'amnistie bi te ay députés Macky Sall voté L'opposition opposition bi ñoo loi d'amnistie posez-vous des questions kan moo rey xale yi kan moo rey xale yi na mu kan ay cocktail molotov bus mais loi d'amnistie depuis ñu toog ci nguur gi ba léegi ñoom nanguñ ci alors qu'ils ont appelé des jeunes leen kaay leen parce que ñun yor des ay dossier product ñu ba bañ leen di dossier ñun suñuy njaboot ak suñuy mbokk xam nañ ne gens la ñuy liggéey ñu foog na ne ñun dañoo bokk ci ay détournement il est temps que ñu génnee dossier bi ñu ne ñu détournement bi la. loi d'amnistie bi sans délai nañ ko dindi parce que on n'a pas besoin de poursuivre des criminels parce que c'est des crimes ay jeunes yi nga xam tirer à bout portant les images sont là les images sont là. on ne peut pas faire fi de ces morts pour lan pour toog ci nguur dafa war leer ñun ci loolu lañ leen di woo ci loolu lañ leen di woo que yooyu ñu daal di koy leeral moo tax ma ne seen posture bi ñu jël ñoom gouvernement bi mooy naxee mbaay nax nit ñi lépp lu ñu waxoon ñu ngi ciy génnaat ñoom ñoo ne woon ñoom ci école yi gën a mag yi la ñu génne que bu ñu leen joxee état suba ñu commencé doxal lan moo fi dox léegi sénégalais yi nit day wax day maandu wax lu jub mais ànd ak nit ki ci dëkk ànd ak moom ci lu dul dëgg loolu du fi nit naan nañ leen leen may parce que xamaguñu mais attends ñoom ñoo ne nañ leen jox bu ñu leen joxee ñu ñu doxal ñoom ñoo ne dañuy jël def appel ak candidature jële maire meilleurs mais aujourd'hui ils prennent des gens qui ont xam ne stage sax ñu les leen à la direction générale des gens yi nga ne dañ leen condamné parce que dañ leen a guerre ñu leen di à ay PCA loolu ce gis nañ ko le DG de l'ONAS a indexé avec des preuves qu'il dit détenir il y a na des preuves contre son ministre il a été limogé pourquoi et on couvre le ministre le procureur la war a dossier bi teg ko ci table ma leen di xamal nag ne bi yoon du man kese man ak yeneen candidat yi nga xam ne demoon nañu présidentiel ñu ngi waxtaan ci waxtaan yu sori li ñuy laaj mooy le président Diomaye mu rendre le tablier may ñu dañoo soxla suñu fauteuil pour liggéey suñu réew. mu tekki ndomba tànkam le président mag le président Diomaye Faye dañu koy ñaan mu tekki ndomba tànkam mënul te wax na ne moom mbir mi da koo bett.

nekkatuñ temps royaume de Kayor ou buur day seet du ko neex tey jii mbaxane bi nga sol neex na ko mu ne nag maa offensé offense offense mooy lan. mais yow Babacar am na li nga xam ne yow metti na la bu ñu ko waxoon tey jii Malick Dieng du ko metti donc ci yaama neex kese la j'applique l'article 80 mais nu soma en 2024 mon cher. ma ne dañ koy ñaan ci njekk bu mënul dem ci njekk danañ ko forcer parce que lii mënul wéy. moom Sonko mënul xam nga xam nga man toujours bu amee agent li ma leen njëkk a jàngal toog ci fauteuil am na ñi nga xam ne tàmmuñu toog ci bureau Sonko da daan taxawaalu rek. bu ñu génnee da ngay gis compétence bokkul mais à l'épreuve on sait que Ousmane Sonko mënul. Diomaye waxi nopp waaw léegi ñun moo tax tey jii suñu wax te man maa njëkk a wax beneen yoon ci suñu ndaje yu jëw S'ils ne changent pas de fusil d'épaule nous dans dans le Et on a les moyens pour dans le cas. on a tout ce qu'il faut les sénégalais nous ne rek di de faire. Ah. mais les sénégalais vont se mobiliser parce que mais mais les gendarmes qui sont disparus mais ils ont de la famille mais ils ont une les gens qui ont une mais nous ont beaucoup, nous avons famille tous ces gens-là ont voté pour se dire que au lendemain, c'est le premier dossier qu'ils vont gérer. Mais jusqu'à présent, ils n'osent même pas parler de ces dossiers. Vous ladj entendu, vous avez entendu, depuis ñu nous Ousmane Sonko wax Prodac. Vous ladj entendu, vous avez entendu, depuis mu nous mu wax amnistie. Non, je vous pose la question. Mais les Sénégalais, mais, les Sénégalais ne doivent pas dormir. Pourquoi ils n'en parlent pas C'est aujourd'hui la raison de, de mon point de presse. Il faut qu'ils s'expriment sur les sujets sur lesquels ils sont attendus. Ils ont manipulé le peuple par la colère. Ce peuple est sorti, a versé son sang. Les familles sont endeuillées. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ces deuils. Les familles, il faut qu'on aide ces familles-là à faire leur deuil. Ah, am leen ci question fiscale mais gëm ngeen ne fisc sénégalais ko war non moi j'ai toujours été. Ah, xam nga lu ma gëm. xam nga lu ma lu ma gëm. fiscalité bu ànd ak xel. pas une fiscalité mécanique bi nga xam ne dama leen di la même chose. je vous donne un exemple un médecin bu tijji cabinet à Matam est-ce que moom même chance la am que médecin bi nga xam mu ngi dans le plateau de Dakar pour une clientèle te pourtant nous, ñaar li ñu leen la même chose j'appelle à une fiscalité intelligente Je dama ci bind ci sama programme l'impôt sur les fortunes ISF dama ci bind impôt sur les grosses fortunes Je dama ci bind j'ai écrit sur ça parce que je gëm dis nit ki nga xam ne sénégalais bi ngay judd amoo dara nga dem ba un milliard à partir de ton premier milliard lañ lay percevoir lañ lay jël ci impôt warul bokk 100 000 francs la am dafa un impôt progressiste donc aujourd'hui ce n'est pas parce que nit ki ENA la génnee wala école bële la génnee que l'on mu wax la non non non non il faut une fiscalité plus intelligente et plus souple tout le monde doit payer l'impôt mais pour prendre aujourd'hui l'exemple des des radios communautaires mais radios communautaires nekk rôle bi ñuy dans la communication mais yéen a xamné a antenne yoyu mais antenne yoyu ça coûte très cher en en électricité buñ ko fayé fan la impôt mais vous êtes la presse répondez-moi xamuñu c'est-à-dire que dañ leen a ne leen 18 alors que ils sont appelés à réfléchir sur une fiscalité bi nga au cas par cas mais c'est des paresseux je vous le dis non li ma leen di wax a ko gens xam ces gens ne réfléchissent pas kuy réfléchir qui top de ce dossier c'est comme ça qu'on va régler ça. monsieur Jadot, 5 mois après. Sénégalais il ñu leen cité leen est ce que vous insultez un peu la mémoire des Sénégalais euh, pour moi, je sais, kan insulté la mémoire des Sénégalais Moi qui nga xam ne da pris, taxawoon jël ay engagement mais engagement yi nga peux pas mënatoo ci wax peux ci wax et je vous ai posé la question sur les questions essentielles qu'il pouvait régler. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi Je me pose la question. Les Sénégalais ont été bernés. C'est ça la vérité. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Vous allez encore, les Sénégalais vont encore souffrir davantage. C'est moi qui vous le dis. non non finis de jëm le Sénégal on sama discours en France. est en proie à une crise en proie moi, là. Moi, il moi, crise Et le Sénégal n'a pas besoin de ça il faut qu'ils montrent leur génie un peu qu'on sache qu'ils savent travailler dites-moi dites-moi en cinq mois quel est le secteur prometteur dites-moi dans secteur la justice mais parlons-en parlons de la justice la justice ce n'est pas seulement euh, les procès, les crimes, le code pénal. Non. Mais la justice, il y a le commerce, il y a le tribunal du commerce. Il faut réviser tout ça. Les assises de la justice, là, vous voyez ce que li ñu waroon wax ci justice lu que mooy les 86 morts man loolu la gëm man loolu la gëm la justice li ci waroon a tey jii mooy 80 bi nga xam ne tey jii wax ñu bëgg la museler on ne peut pas nous intimider. Hein. Nous, on n'a pas commencé à nous battre pour notre pays quand on a été cadre. Hein. On s'est battu au collège, au lycée, à l'université. On s'est battu pour ce pays-là. Mais quand tu les entends parler, tu sens que ni du Sénégal. Ils ne connaissent pas ce pays-là. Mais ils ont vendu le projet. Pour commencer par le projet. Ils ont vendu le projet. Le projet de septembre commencé. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas de programme ku xamul fu mu la jëmee da ngay teel a taxaw la solution bi ñu c'est une pollution la solution de Ousmane Sonko c'est une pollution ce n'était pas non c'était vite. ils disent que au mois de septembre dañu am programme dañu am projet est-ce qu'ils avaient dit ça durant la campagne na kenn yëkkati loxoom rek ne ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de projet na kenn yëkkati ci loxoom ci salle ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de projet qu'ils sont en train de le préparer. mais ont ont wax projet mais projet mais un projet d'ailleurs un projet dafa am un un projet day contenu ils n'ont pas de contenu un projet dafay am durée amul durée. waaw xam nga tey que je place am man man bu place

pare ngeen si juróomi euh, lu ñu yëg suñu yaram la parce que dangay ngay génn sa kër sax dajeeg sénégalais bi nga xam ne da doon taxaw naan jomaay Sonko mu taxaw naan la sa waaye affaire yi doxul. billaahi wallaahi taalaahi kon ça dire que aujourd'hui ce peuple là amatul espoir te loolu ba baaxul ci réew. ñun en tant que acteur politique suñu rôle moy limay def ni moy wax ne ñun amna taxaway bi nga xam ko parce que réew mi dañu nangum daal dañ danañ ko jël ci loxo ñi ko ñu ko yor teyé ko même bu dé assemblée nationale lañ koy lañ koy yoré tay ji pour guider ce gouvernement là pour leur imposer une cohabitation très rapidement parce que bu ñu assemblée nationale tay ji même si le président Diomaye ne démissionne pas et c'est ce que je demande bu démissionné wul on va mettre en place notre gouvernement et bu boba on va gérer ce pays là mais Aliou Diouf na ci Ousmane Sonko waaw mais xam nga kii gouverneur tamit mënul mooy lii rek man d' accord naa li li li li li wax ah d' naa ci wax mais mais yéen xool ngeen Diomaye lan la gouverner wax leen ma rek nañu wax ne dëgg. est-ce que vous êtes dans votre projet parce que apparemment moom mooy le je ne bon mon engagement envers les gens parce que j'avais dit que damay citer liste ñi nga xam ne ñoo jot a dugg. ci candidat présidentiel. mais sama engagement ak ñoom mooy doot du ma joxe tur. mais parmi les candidats présidentiels yi passé am na ñi nga xam ne ñu ngi suñu projet bi voilà. mais est-ce que nous. Euh, est-ce que nous ñi nga xam ne ñoo féete côté Prodac dañ gis ñi nga xam daf leen jor moo tax ñuy profité di wax est-ce que loolu moom moo daal ba tax léegi génn na sotti yi non euh, man man ma concerne man non non man man ma concerne il y a eu combien de rapports qui sont sortis j'ai été directeur pendant 10 ans là-bas rendre directeur pendant 10 ans j'ai géré mës ngeen dégg sama tour ci benn rapport mës ngeen dégg sama tur mës ngeen dégg sama tour ci benn rapport man man qui, man qui est osé partir après la sortie du rapport de, la Cour des comptes à la télévision en direct pour parler des faits, pour décortiquer le rapport. man mi osé l'homme, quand même. maintenant qu'il est là-bas dossier parce que nous, on était mal dans notre chair quand on parlait du problème et on était mais le ma dit nos familles étaient en danger dañ mais tal nañ taal nañ nous ku liggéey Nous da ngay liggéey si da ngay liggéey si Prodac doo yëg manifestation amna parce que ñun Prodac fi mu nekk ak kër Ousmane Sonko soriwul quartier bi la ñu le quartier mais il est arrivé que ñu toj biir produit, mais on était en danger de mort par le seul fait qu'on nous a indexé pour dire que nous sommes des voleurs vous vous rendez compte nos vies étaient en danger mais fi de dëkk que xam nañu ne il il y a des sonkistes il y a des trucs la dernière fois ne bëgguma pas tour, mais dafa xëcc vitre bi sama kër rek mais gars yi dóor mais on a vécu ça hein. on a vécu ça on nous a exposé maintenant c'est il est temps que nous ñu gagnions New-York. au lieu de ça j'ai vu que entreprise bi li mu Makissal, nangul na ko ñi Sénégal pour lan est-ce que d'ailleurs nekkoon avec l'entreprise pour déstabiliser le pays qu'on nous dise on a besoin de savoir on a besoin de savoir le peuple a besoin de savoir merci